laaj nga lu am solo les sonico. du askan moy lu le nom saraxulle moy couleur bu que bu melni parce que saraxulle bi euh, Mo daan wax tubaab bi nan nit bu bi nit bu weex bi ñewna ba léegi tubab bi bu mais ay soninke lañu mais ñooñu dama leen naw tu pour pourquoi dañu def nii famille lañu ku ñëw ak sa lonk et mag rakk day topp mag mag topp magam tu sais saraxule day liggéey ba fayeeku amul droit jël ko def ko ci poche am da koy jox ki mag et ki mag moom la yàlla jox teraanga moo war a yore ñëpp tu sais pourquoi saraxule yi ñu naan kër gi soninke yi ñoo saraxule bi moo ko moom bi saraxule bi moo ko tu sais pourquoi parce que amuloo droit tabax sa kër dem dëkk fa yow kenn ak sa doom bàyyi famille boobu moo tax préférer nekk ak famille bi tabax kër luwe ko donc ñoom dama leen ñaw et de passage mon jeune frère Demba Tandian et mes fans Soninke Mbaye Faye vous salue.